ñu leen nuyu leen jaajëfal euh, si teewlu bi seen émission face to face euh, dellu si ñu ngi nag euh, fii nga xam ne mooy monument de la renaissance gis ngeen ne début mois de décembre ba léegi daanaka sunu émission yu bëri fii lañ koy amalee ci monument de la renaissance bi nga xam ne lu am solo la ci dundinu réew mi ak itamit sax ci souvenir Euh, ci tamit euh, ñu fàttaliku euh, ñun africains yi li nga xam ne mooy sunu jaar jaari maam ak ñu ndax fi da di foo xam ne nasaraan si. étranger yi ak sax waa réew mi ku bëgg xam rek sa démb pour mun a gën a mën a comprendre sa tey ak sa suba foog nga doxantu fi xool euh, yi am solo yi fi ne kon mu mel ne monument de la renaissance bii euh, ni fi euh, njagandu directeur télé bi délocalisé yenn ci ay émission yu am solo la ndax dina gën a Euh, concours euh, dina gën a daal euh, fësal li nga xam ne mooy sunu yëf ñun sénégalais yi muy rek aaju si li nga xam ne mooy gën a jëmmal sunu histoire ak itamit li nga xam ne bokk na daal si sunu civilisation ni ma ko mënee waxee noonu grand Moustapha Diakhaté honorable député kon face to face seen émission dellu si waat ñu am nag mbégte dajawaat tey ak ki nga xam ne kenn la ci mim réew kenn la ci acteur euh, politique yi ndax euh, yéen safoo ngeen ko lool ci ñeme wax euh, xalaatam ci ni nga xam ne noonu la parteem di doxee ak tamit réew mi ci yenn fee yi nga xam ne dafay xew ñu tey nag ñu fas yéene ko invité waxtaan ak moom ndax yéen askan wi jox demande d'explication ne ma joxal ñu ko honorable député Moustapha Diakhaté mu wër ko nag euh, ba ba ba jox ko ko ne ko nag euh, mu liir ko liir na nag demande explication bi la ngeen ci bi yëpp liir na ko gis ngeen ko nii mu ñëw ak agenda woom fas yéene ñu sekk euh, man ak moom baat ak tontu lépp nag yéen ma ko jébbal ma jébbalaat ko ko kon mu mel ne honorable député Moustapha Diakhaté ancien président du groupe parlementaire bu benn Bokk Yaakaar bokk ci membre fondateur yu Alliance pour la République nekk tamit ku xam président Macky Sall ndax jegeñaalem la Euh, nekkoon fi euh, ministre conseiller euh, ministre chef de cabinet du président de la république nekkoon fi ministre conseiller mu mel ne la mu yoroon ci ay ndomba tànk bëri na jamono yi na gis ngeen ay taxawaayam ci mim réew am ñu ko rafetlu am ñu ko rafetluwul tey demande d'explication bi ngeen ma jox pour moom mooy ngeen bëgg comprendre Moustapha Diakhaté dëggantaan lan mooy ay motivation ci yenn yi honorable député ginnaaw ba ma la nuyoo jaajëfal la ci lu bari nag euh, li ëpp ci li ma lay jaajëfal mooy li nga ma nanguloo sunu émission bi ndax euh, émission bi euh, tey mun naa ko wax fii ci biir ci caméra yi toog naa ko yow sa kër déplacé loo xam ne bëriwul lu ma koy def ñëw naa ba sa kër ñu toog nu waxtaanee ko ndax dama la ne tey damaa bëgg yow sama mag nga di sama xarit ma assumé ko nëbbuma ko ba nu xamante yàgg na sa kanam laa màggee euh, nga am taxawaay bu bëri nag fan yii noo xam ne man ak euh, xëy na ñu bëri comprendre ñu waxtaan nañu nag euh, am na ci loo xam ne mën nga ko wax Sénégal yi ak loo xam ne mënoo ko wax mais tey dama bëggoon tey mu nekk clarification nga waxtaan ak sénégalais yi. Euh, pour ñu nga jàppale leen ñu comprendre ndax ñu la bëgg bëri naa mais ñu commencé jaxasoo ci say say say comportement dafa bari te kon il faut nga expliquer leen lu waral loola kon dama lay bàyyi ginnaaw ba ma gërëmee ci ni nga ma nangulee jotaay bi ma sant la bàyyi la tamit nga nuyoo Sénégalais yi nga xam ne ñoo la bëgg di la seetaan ma bàyyi la nga nuyoo ñu doogoo nag xuus ci biir euh, jotaay bi euh, aousubillahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim kon nag su maa ngi lay fay ci nuyu bi di la nuyu di nuyu équipe bi nga àndal ci émission bi face to face bi di nuyu waa groupe Futurs Médias yëpp. Mm. jiital ci nuyoo bi président ministre Youssou Ndour. Mm. di nuyu Sénégal yi nga xam ne ñu ngi nuy seetaan te ñaan yàlla subhaanahu wa taala mm. mu baaxee nu ba liñ fi waxal amal njëriñ réew mi. kon maa ngi sa disposition. Mm-hmm. soo laajee lu nu mën a tontu nu tontu la suñ ko mënut itam nga xam ne noo tëli rek. <laughs> loolu loolu loolu leer nañu grand <laughs> alors sama demande explication bi dégg nga ko. Ah. Euh, li may dooree ak yow euh, président Moustapha Diakhaté mooy euh, président Macky Euh, yan acte la posé euh, loo xam ne daf laa naqari mere la ba tax euh, nga am taxawaay bi nga am mooy nekk ci Facebook bi ñu bari jàpp ne lépp lu mu def nga nga ci suuf lu ko waral. <laughs> waaw xam loolu moom ay ay jàpp la ndax demewut noonu. Mhm. lu mu wax lu mu def ma xëpp ci suuf déedéet. Mhm. kon su ma ko defee dootuma nekk man. Mhm. su boobaa damay damay malhonnête. dama jàpp ne nit ki moom. daa war a fexe ba benn. même bu nekkee ci nguur ak mu bañ a nekk ci nguur a ci yem. mu nekk ci opposition comme mu nekk ci majorité. ki yor réew mi bu defee lu baax. war nga koo mën a wax ne def na lu baax. waaye su defee loo xam ne jàpp nga ni baaxut itam nag war nga am sañ-sañu ne baaxut ni baaxut li bon daal mooy lu ñu mën a def même bu baaxut nga ne baax na. lu ñu mën a def bu ne bu baaxee nga ne baaxut. Mm-hmm. yaar yooyu moom yàlla musal na ma ci. Mm-hmm. te jàpp naa ne nekk ci nguur di wax sama xalaat. loolu du lu bees ci waa Sénégal. Abdoulaye Wade mille bi mu faloo. Euh, weer yu néew laa ca teg. mois de novembre 2001. créé benn moment bu ñu tuddee wàcce alternance pour di ko fàttali sas yi nga xam ne moom la sasoo woon bu ay njuumte amee ma wax ko ko su defee lu baax it na ma encouragé ko noonee ma doon doxalee. moom laa kon ne di doxal ba léegi dara soppiku wu ci. Mm-hmm. ma ma ma ñëw nag ci ay laaj yoo xam ne. Euh, ñu bari jàpp nañ ne lii nga merewee président Macky Sall euh, mooy euh, assemblée nationale d'abord la yëpp xewee nga nekkoon président groupe parlementaire ñu jàpp ne président Macky Sall yow de sax démissionné nga loolu loolu laa la nit ñi wax mais li li li li ñu bëri li ñu jàpp mooy président Macky Sall moo kontaanul ca na nga yoree groupe ba ne la ma sama yëf loolu nga xam merewee ba tax nga commencé sànni xeer lu ci am nga wax ma ci amul nga dem amul. waaw xam nga eh, ay satu Macky Sall duñ bokk bàmmeel. Mm. musuma jox dara ne ma delloo ma ko. Mm. musul benn mooy groupe bi bi ma ko joxee fukki fan ak juróom laa ko yor ma bañoon indi jafe-jafe sama diggante moom ma dem ne ko dama bëgg nga jël sa groupe jël sa député su ko defee man ma féete la feneen mu expliqué ma wax ma ma tontu ko ba mu convaincre ma euh, ne ma pour ma rester en tant que président de groupe kon bu fekkoon ku mën a def loolu jàpp naa ne même bu fekkoon ne président de la République ma daf ma ne bi mandat bi jeexee daf ne ma damay nangu yëf yi du ma ko ci war a mere benn bi ci des mooy kooku mën ngaa xool yi sa sa confrère ku mel ne sëñ Diagne boo ko laajee. mën na laa bu Dakar bu Dakar ak ti émission laa fa jëkk enregistré ma ne bu mandat bi jeexee dootuma nekk député. Mm-hmm. loolu ci sama coobare bopp laa ko waxee. Mm-hmm. président la République may ma ko. wax naa ko waxati na ko même am na émission bu ma doon def ak Baye Ngagne Ndiaye dellusi woon naa ci. Mm-hmm. gis nga bi élection yi jàllee. li ma naroon mooy président de la République bu prêté serment ci suba gi. ci ngoon si ma dem delloo ko ministre chef de cabinet bi. boobu ndax maa ngi ñëw rek. bi ma ko naree damaa dem fu mel ne tubaa journaliste bi ay journaliste ña nga Touba mën nañoo dem laaji sëñ Modou Mbacke si lu ma ko wax ba ma ñëwee fa moom dama ne ko man de sëriñ bi damaa bëggoon su ma jógee ci yow dem Cheikh Bass damaa bëgg bu président prêté serment ma delloo ko ministre de cabinet bi pour mën a defe leneen mm. sëñ Modou Mbacke si ma nee ma loolu bu la ko dara jaral mm. Euh, bul bul parce que bu président buy door a falu nga démissionné kooku mën naa jaxase bopp nit ñi. Mm-hmm. kon bu ko dara jëlal bàyyi ko rek seetaan ko. Mm-hmm. lu mu def nga xam ne baax na. Mm-hmm. daal di ci teg ne moom lii nga mën na lii nga naroon waxi Cheikh Bass sax na nga ko bàyyi. bul wax kenn dara delluwaatal Ndakaaru nga noppi te di ko déglu. kon Aïssatou koo xam ne daa bëggoon bu président prêter serment ci suba si. mu ci ngoon si mu delloo ko li ko joxoon. kooku président de la République bu nangoo lam ko wax dëgg yàlla mënu ko mënu ko caa mere. ñi ko ñi xam ni yemuñu foofu ñu ne waaw bi mu nangoo ministre de cabinet bi joxaatu ko dara moo tax muy wax te man bañ nangoo si ministre de cabinet laa xam ne nommé nañ ma ministre conseiller mm-hmm. waaye nag dama baaxoo ba ma président nommé ma di ko siiwal mm-hmm. léegi kon moom kon ñi doon wax ne damaa nommé wut moo tax may wax kon ñooñu la ñu wax la ñu wax du dëgg mm-hmm. ñu ci jógee euh, ñu ne waaw am na xam ne waaw dafa bëggoon a ministre euh, euh, plein gis nga su ma bëggoon ministre plein xam naa nu ñuy def ba ba doon ko xam naa fa ñuy def ba jaar ko man li ma bëggoon mooy président la moo accompagné ba mu am deuxième mandat ma féete ko feneen foo xam ne du ay ay ay décret mooy dox sama diggante moom. li ci mujj mooy nom euh, euh, limogeage bu mujj bii. Mhm. nga xam ne loolooy limogeage moom buy rëwër. Mhm. keroog ba ma ko déggee ci réseaux sociaux yi laa ko déggee. Ah, dafa nga yëgee ah réseaux sociaux nga yëgee ci ko déggee mhm. ma daal di bindaat tontu ko ci réseaux sociaux yi bind ci sama page Facebook bu gërëm ko ci nangu gëm nangu post bi daal wax lu tax ma gërëm ko ci gërëm ko ci boole gi ma boole woon ci liggéey bi ñaanal ko fi mu jëm gën fi mu jóge xam nga lu tax ma ma gërëm ko ci nangu gi mooy bi ma mujjee gis ak moom ñu discuter sur sama li may sama liberté de ton bi li may wax ñu waxtaan ci ma moom ma ne ko monsieur le président damaa bëgg rek su fekkente ne yow ànd bi dem na ba ñeges ci sa côté ba diis ci yow ba bëggatoo ko nga nangu li ma joxoon mu tontu ma ma tontu ko ñu teg lañ ca teg mutu juróomi fan wala fukki fan gën ngaa bari mu nangu li mu ko naka laa ko mën a ñaanee ne ko yow président dama bëgg li nga ma jox nga nangu ko mu nangu ko ma di ko ci mere kon xool nañu bàyyi wax yooyu mm. man ba may ànd ak président ma Sall boobu maa ngi ci cabinet président Abdoulaye Wade mm. Abdoulaye Wade song ko bëgg koo sànq mm. ma ñëw di bi ma ko njëkkee xam këram damaa dégg Farba euh, euh, Senghor attaqué ko ma woo Ababacar Thiam ne ko dama bëgg nga yóbbu ma kër Macky Sall xaw ma woon fu mu dëkk mu ma xaar ma ci de la poste ma xaar ko foofu Ababacar Thiam ñu yóbbu ma kër Macky Sall ñu waxtaan mu wax ma yëf yi fu mu toll ma sol sama dal di dox diggante ma Abdoulaye Wade nga defar ko dama dem ba yëf yi yàqu mu dem may itam bi ma génnee PDS ma ñëw fekk si ko fa kon ba ma koy fekk si ay ndomba tànk wut si ma ko woon parce que boobu mënu koo joxe ba muy toll ci mën a joxe ndomba tànk xaw ma woon daaw ma gis kon encore une fois nañu bàyyi wax yooyu mm. man ba may nekk ci cabinet Abdoulaye Wade ñuy xeex PDS di xeex Macky Sall damaa àndoon ak Macky Sall kon encore une fois waxu caaxaan yooyu nañ ko teg suuf tey déglu nit ki euh, ba xam dem li ñu waxaan mën naa nag euh, gis nga ay mm. du ma def unanimité ndax loolu jàpp naa ne suñu borom subhanahu wa taala sax amu ko mm. waaye nag li nga xam ne wóor na ma mm. mooy bari na ko Sénégal yoo xam ne seenub xel ak seenub xol maa nga ca li ma ñaan yàlla mooy yàlla bu ma dem ba rusuloo leen loolu rek mooy sama yi